laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah mu ne ndayu Moussa ndayu Cheikh man man man aw turandoo laa waxal bi nee na ah, ñi tuddee seen bopp ndayu Cheikh Moussa ma waxoon Moussa mii. nee na waxuñoo Moustapha mii. ñoo ñoo ñoo ko wax rek ñoom. nee na ñoom ñoo ko wax rek ñoom. waaye ka tax ñu naan Moustapha nag. waaye ka tax ñu naan Moustapha nag. kooka la ñuy waxal. nee na kooka la ñuy waxal. ndax ci moom la liggéey bi jëm. ndax ci moom kat la liggéey bi jëm. mooy Moustapha ma ñu tànn moomee. mooy Moustapha ma ñu tànn moomee. xam ngeen ni mii Moustapha moom. nee na xam moom. du rey du rey seen xar yi mukk. du rey mukk seen xar yi du ko rey. du ko rey lu mukk. da leen koy joxal ka jox ka nga xamante ni moom mooy jox Moustapha moomee. Moustapha ma nga xam ni. Moustapha ma nga xam ni. ci bind moom. ci bind moom. moo gën gënal ci lim bind. moo ko gënal ci lim bind. yow ci sa bopp nag. yow ci ab jaam nga. ginnaaw ab jaam nga. su la neexee su la neexee su la neexee nag yow tam. sëñ daam sooda faal. sëñ daam sooda faal. nga seet ku la gënal Moustapha. nga seet nag yow ku la gënal Moustapha. xam nga kii Moustapha. sëriñ bi nee na sëñ Dame Soda mii Moustapha la tudd de. kii am solo. sëñ sëñ Modou Fallou Fall mii dend ak moom Moustapha la tudd. kenn ku nekk ak. nee na kenn ku nekk nag. nan nan koy wooyee. ak nan koy wooyee nag. borom kër gi du naan ko. nee na borom kër gi dañ naan ko. kii de mooy kii de mooy ki nga xam ne. kii de mooy ki nga xam ni. lu mu wax ñu def ko. lu mu wax ñu def ko. kii ni ko. kii ni ko. ñi ñi ñi ñi fi daje daal. ñi fi daje daal. jëmm jii moo leen fi indi. jëmm jii moo leen fi indi. ñee ñeeni ko. ñeeni ko. ban xëy di liggéey bañ xëy di liggéey ka tax ñuy liggéey ka tax ñuy liggéey mooy kii ba tey mooy ba tey rek fan jëm di fa liggéey fañ jëm di fa liggéey kii tax di fa liggéey kii tax ñu fa liggéey kii mooy joxe njël kii mooy joxe njël yi mooy tax ñu wuti am ndox ci teen mooy tax ñu wuti am ndox ca teen ya yooyu yëpp ay dàkkantal yooyu yëpp bi nee ay dàkkantal waaye Moussa sa alayhi wa sallam waaye Moustapha sallallahu alayhi wa sallam la tudd. mais boo gisee ma nangu nii loolu ma nangu loolu. nee na moom itam boo gisee mu nangu loolu. waaw xëy moom la kii rek. bi de. waaye su ma ko doon tëdd rey kat. waaye nee na su ko doon tëdd rey. di ko rendi. di ko rendi. kon du ko jël mukk ci. nee na kon du ko jël mukk ci àdduna. waaye nii sax ba defal leen ko foo xam ne. waaye nag leen ko foo xam ne. da ngeen ciy am defaru tey. da ngeen am defaru tey. ak defaru ëllëg. ak defaru ëllëg. ndax bokk ci lii moom. ndax ne sëriñ na bokk ndax ndax ndax taral la fi ne ndax nee na taral la fi mu nekk nii ma génne léegi li mu fi bind nee na gis neen bi mu génnee ak léegi li mu fi bind ak lii bàyyi ko joxe itam ak lee bàyyi ko joxe moom itam lépp nag sëriñ bi nee na lépp nag bu ma nee yéenay royuwaay bi bu nee yéen yéenay royuwaay yi seen jëm yi rek taxaw seen jëm yi rek tax kër Cheikh Fall yéen liggéey kër Cheikh Ibra Fall gii ngeen di liggéey moom la jubloo wax moom la jubloo wax mooy royuwaayu ñëpp mooy royuwaayu ñëpp mooy royuwaayu fépp mooy royuwaayu fépp mooy royuwaayu lépp mooy royuwaayu lépp Euh, murid yi sëriñ bi nee na murid yi kenn ku nekk kenn ku nekk ndaw daan la fekk fa nga toog ndaw daan na la fekk fa nga toog muy muy fa nga dëkk muy fa nga dëkk nga fab am xar jox ko jox ko mu doxal la sa kilifa mu doxal la sa kilifa di kilifaam nga ko yónni di kilifaam nga ko yónni loolu lépp nag loolu nag seen jom ju mat seen jom ju mat ji ak ngoru murid yi ak ngoru murid yi nga xam ne ku ne sëñ loo war nga xam ne kenn ku nekk sëriñ bi boole na la loo war loo war ba mën a dem fa moom ba man a dem fa moom wala mu boole laa koo xam ne wala mu boole laa koo xam ne am na lu mu war moom am na lu mu war moom yóbbaale la fa sëriñ bi ba mën la yóbbaale fa sëriñ bi nga xam ne kenn du jëlee ci am xar nga xam ne du jëlee ci am xar fen di ko indi ku mu neex nag ku mu neex nag nga roy sa kër Cheikh Fall nga roy nag kër fa nga nekk fa nga nekk nga def ni waa Kër Cheikh Fall def nga def ni waa Kër Cheikh Ibra Fall di def ndax li fi am njariñ ndax li fi am njariñ ña koy def ña koy def ci moom lañ ko royee ci moom rek lañ koy royee kon nag yéen tam kon nag sëriñ bi nee na yéen tam liggéey bii liggéey bii sëñ Modou Fall mii la yónni woon sëñ Modou Fall mii la yónni woon ñii la yónni woon sëñ Modou Fall mii la yónni woon waaye loo joxe seen seen jëf ba nga teyal loxo nga xam

ci bind jaam ñi rek ci bind jaam ñi rek moo koy baaxee ab jaam moo koy baaxee ab jaam kon jërë ngeen defati rek kon sëriñ bi nee na jërë ngeen defati rek liggéey bi yàgg gën a yàgg nee na yàlla liggéey bi gën a yàgg waaye te gën a woom nag te gën a woom nag nee na na doon ay junni na doon ay junni junni xar koy doon ñun rek lay ñeel kon tam sëriñ bi nee na ñun rek lay ñeel ak yéen ñi ko jëf nag ak yéen ñi ko jëf nag yéen a moom jëf ji de sëriñ bi nee na yéen a moom jëf ji de sëñ daam sooda fall fekke nga lii fekke nga lii mu ni sëriñ bi nee na murid yi am nañ jom lool teewul nag teewul nag li sëriñ bëgg lépp ñoo ngi li sëriñ bi bëgg lépp ñoo ngi ci nee na moom xamul sax fu ñu wute lii fu ñu koy wute di ko indi yitte moom bu dee jenn waaye fekk na sëriñ bi nee na yitte moom bu dee genn la faw yitte ja faju soxna Njaay soxna Njaay Fall yéen tam gay na jigéen yi man yu góor yi sëriñ bi nee na yéen tam gay na yu jigéen ñoo man yu góor yi waaye lii lépp ndolloon la yéen lay gàttandu nee na lii lépp ndolloon la yéen rek la ñu gàttandu bi nee na lii lépp bi ñu génnee da ko moom daa génn rek fekk ko fi. waaye euh, ki ñu koy defal nag. waaye nee na ki ñu koy defal nag. nga xam moo tax ñu di ko def. nga xam ni moo tax ñu di ko def. moom du jaawale. moom du jaawale de. xamee na lépp. xamee na lépp nag. segam noo ko xam noonu. segam noo ko xam noonu. rawatina suñu borom mi tax ñu di ko def. rawatina rawatina suñu borom mi nga xam ni moo tax ñu di ko def. jërë ngeen jëfati rek. sëriñ bi nee na kon jërëjëf jëfati rek. sëñ daam sooda sëriñ bi nee na yooyu kàddu la bëggoon a yëkkati. bañ dégg ko rek. bañ dégg ko rek. <coughs> jërëjëf Fatou Ndeye sant naa baax na ma def ñu ñaan rek taxawaay bi gën a yàgg lool. barkeb Seex Moodu Fall sëriñ bi day gàttaloon leen bu baax a baax a baax ndax ni ko suñu waxee liggéey bi di fi ni kenn mënu leen ci waaye naka jëkk ñu ne boole seen i téeméer seen i ñaar téeméer di waajal di waajal bis bi rek so bi fii ban tàmbali liggéey bi léegi mos mos a jógee fii muy jóriñ mos a jógee fii te kenn mënu ko ci liggéey bi kenn mënu ko ci liggéey bi kon lépp ne sëriñ mënu ko dimbali rek ñu ñaan nag mu yàgg loolu tax na barkeb Seex Moodu Fall sëriñ bi daal gàttaloon leen bu baax a baax ba lii gàttaloon leen na lay gën a jàppale bu baax a baax li ne seen xol bi bari na lool yéen a ji réy na lool da ko carte gima tagu gima tagu wosse gima tagu lepp ñu jéxal ko tak sëriñ bi rek lepp ñu alagu sëriñ bi rek waaw mu ñu fay bi ñi ñu fay rek yéne bu ma fay bi jëf la ko waral moy lamp waaw néna bu ñi yéne mo ëpp fay jëf Seigne Dame Sodo Fall Seigne Modou Fall lu mi ñu yoni won yéne jo xamni yéne jo xamni dess ko tambali lañ wax ne yéen moom bu ñu ko ne yéen moom bu ko tàmbaliwul. dee su ko fay moom. safaan ba ay yiwaay ci yam. safaan ba nag ay yiwaay ci yam. ba muy toll ni jëf ba muy toll ni jëf waxuma laa nag mu di ko ëpp moom kon nag sëriñ bi nee na moom tàmbali ngeen seen yéene léegi nag li ci seen xol léegi nag li ci seen xol yi ci leen seen borom di atte bu fekkee da ngeen a bëggoon muy téeméeri xar joxe ngeen téeméeri xar yéen su ngeen bëggeen muy junni xar joxe ngeen junni xar moom la ñu bind ndax yéen a ji ñu tàmbali suñ borom moo koy àggale ak jaam bi. lu nekk seen xol rek. su nekk ni sëriñ bi nee na lu nekk seen xol yi rek. yiiwa yiiwa lañ leen di delloo. lañ leen di delloo. ku joxe menn xar képp. ku joxe ku xar képp. milliard xar nekk ci xol ba. milliard xar nekk ci la ko suñu borom di bindal. ndax tàmbali yéeneem de. ndax tàmbali na yéeneem moom. Ah, bu nag. nee na ku loroon benn bakkan nag. dafa fas yéene woon lor junniy bakkan. dafa fas yéene woon nag lor junniy bakkan. am na yoolu ku lor junniy bakkan. ci bakkaar kon nag sëñ bi nee na rek am solo. te yéene ngeen lépp. te yéene ngeen lépp yéen. sëriñ bi nee na jërë rek Masamba nee na kenn ku nekk benn nga joxe woon. la nekk sa xol nag. la nekk sa biiru xol nag. yaa tàmbali sa yéene. yaa tàmbali sa yéene. nu mu toll nag. nu mu toll nag loola nga am yow. ah du caaxaan loolu rek. sëriñ bi nee na du caaxaan de. loolu dëgg nag nee na loolooy dëgg de. bu yaakaar ne da ngay joxe benn. junni. ñeenti junni. ñu di la fay benn. ñu di la fay benn. ah loolu sax moom daa daa tollu foofu. nee na suñu borom tollu foofu de. weesu ko. nee na weesu na ko ndax yéen ah, bu doon leble. ndax yéen bu ngeen doon leble. dërëm dërëm it. dërëm dërëm it. sakkan na sakkan na. waaye nag yéen yéen mayewu leen. waaye nee na yéen mayewu leen. saraxewu leen addiye ngeen joxe addiye ngeen joxe. addiye nag. nee na addiye nag. li fekk addiye la tudd rek. li fekk kenn xamul. kenn xamul lañ cay delloo borom lañ cay delloo borom bor boo xam ne kenn xamul bor boo xam ne nag kenn xamul luñ cay delloo borom ana ko mën leen ana ko ko mën a leen seen amatul njëg sëriñ bi nee na fi mu nekk nii de seen këf gi amatul njëg de nga addee la tudd ginnaaw addee la tudd kenn kenn mënatu ko jënd kenn mënatu ko jënd mennum xar mu ne mennum xar mu ne junniy milliard junniy milliard loolu mën na ko tudd ci aw làmmiñ loolu mën na ko tudd ci aw làmmiñ kon kon seerul kon nee na seerul li seer daal mooy li seer daal nee na mooy menn mu ne menn mu ne mu ne su ko tudd rek lañ cay delloo jàmm lañ cay delloo jàmm bi ci joxe meen xar. ci joxe meen xar. ñu jox ko milliards xar. loolu loolu bariwul. loolu sëriñ bi nee na bariwul. ndax ku ne xam na ne meen xar nga joxoon. ndax kenn ku nekk xam na ne meen xar nga joxoon. ñu bindal la milliards xar ñu bindal la milliards xar. li am solo daal. li am solo daal. waxi sëriñ Tuubaa ji. waxi sëriñ Tuubaa ji. tabbi sa xol rek. tabbi sa xol rek moom. ndax benn addiya képp. ndax benn addiya képp. bu doon dundug adduna. bu doon dundug adduna la. kenn mën a dund. kenn mënut a dund. loo ko jeexale loo ko mën a jeexale yow. ndax ndax boo ñu am ci banque kat ndax ña am ca banque yi kat. yéefar yi yàlla sax. yéefar yi weddi yàlla sax. ku ci am junni milliard. ku ci am junni milliard. xam nga ni. xam nga ni yaa moom loola. waaye kenn xamul. waaye lu kenn xamut nag. loolu sëñ Tuubaa rek loolu sëñ Tuubaa rek ku ñemee wax. te kenn xamul nag. te kenn xamul nag. li ñuy delloo ab jaam. li ñuy delloo ab jaam. ci benn at yi. ci benn at yi. ku dul kooku wax rek. malikal mulki asawa jàlla faqat yàlla góoru bóor yi rek kon nee na yi muy lim yépp nag li muy wax ni ku joxe addiya di ko am ah, day wax ni ku joxe addiya bokk na ci yu ko suñu borom di delloo waaye lañ koy delloo nag lépp lépp loolu mu ne su ko xam moom nee na ku dul kooku mu wax rek mu ne su ko xam moom sëriñ bi na ak weddi la kenn xamu ko day am foo yemale jàppale sa borom moo tax sëriñ bi nag ni kudul kenn xamu ko kenn xamu ko kudul yàlla buur buur ñi rek te yooyu mu lim yëpp day moom yooyu mu lim yëpp day nee na moom da bokk ci loxo ku joxe addiya am ko rek daa bokk ci li nga xam ne ku joxe addiya ko rek waaye sëñ bi néewul mooy fay kër sëñ bi néewul sëriñ bi néewul mooy fay mooy fay <laughs> loolu sëriñ bi nee na xajul de. xajul ci am xel yi. lu kenn xamul lu kenn ilaaha illallaah